lenn lu ne waxtu wi tisbaar di jot lenn lu ne mooy gën a gudd ab takk ndeeram lu mën doon nag boo demee ba boo nattee takk ndeer ba mu gudde ne boroom takk ndeer bi te konte waale woo ci na takk ndeer ba tollu woon ba tisbaar di jot xamal ne kon muxtaarum tisbaar jeex na takkusaan nag tàmbalee foofa bu muxtaarum takkusaan tàmbalee foofa ma nga yemi ci bu suuf si gelee lim tudde isfiraar gel gi mu wax gel mooy bu takkusaan yi suuf jotee nga xam ne boo dee xool naaj wi du weexati day xongu ndax takkusaan yi suuf jot na jant baa ngi bëgg a so loolu moo tudd gelu suuf si foofu la muxtaarum takkusaan yem foofu muxtaarum takkusaan yem fi la daroori yoom di tàmbalee ànd ak daroori yow tisbaar ñu ànd di ànd ba jant bi so wala nga ne ñu ànd di ànd ba la des ci digganteeg jant bi so genn julli moo fa xaj ñu moomale ko takkusaan bàyyi tisbaar ba tey buñ bëggee xamle fa muxtaarum takkusaan yam daañu wax ne mooy bu ñu demee ba takk ndeer bi ñaar ca boroom takk ndeer ba nga xam ne ba takk ndeer bi guddee ni boroom takk ndeer ba moom lañ tudde woon alqaamatu al ula suñu demee nag ba takk ndeer bi ñaar ca boroom takk ndeer bi daañu ko tudde alqaamatu attaaniyatu ban ngaa takk ne nit ku ne bu dee ci xasabu boppam ñeenti xasabam mooy tolloo ko guddaayam bu dee ci ndëgguy boppam juróom-yaari ndëggu mooy tolloo ko guddaayam ashrik huma na nga leen bokkaat la ko doone waxtoo moom it nga julli ko ca mu daldi doon nam war a doon fa muxtaarum tisbaar yam fala takkusaan moom tàmbalee takkusaan nag mooyam ci isfiraar gel gi mu wax gel mooy bu takkusaan yi suuf jotee nga xam ne boo dee xool naaj wi du weexati day xongu ndax takkusaan yi suuf jot na jant baa ngi bëgg a so loolu moo tudd gelu suuf si foofu la muxtaarum takkusaan yem foofu muxtaarum takkusaan yem fi la daroori yoom di tàmbalee ànd ak daroori yow tisbaar ñu ànd di ànd ba jant bi so wala nga ne ñu ànd di ànd ba la des ci digganteeg jant bi so genn julli moo fa xaj ñu moomale ko takkusaan bàyyi tisbaar ashrik huma na nga leen bokkaaleel ñoom ñaar bil qadri ca kem ba kenn mën a jàng nag ashrik huma ci booy jàng way ni mu tëddee waaye booy jàng benn benn moom ashrik huma mooy doon cosaan daa wax ne tisbaar ak takkusaan am nañu bokkaale ci waxtu am nañu bokkaale ci waxtu mooy bu dee jamono yoo xam ne tukki woo nga xam ne julli yi dañ koy matal ñoom ñaar daañu bokk ci waxtu lu tolloog loo mën a jullee ñeenti ràkka bu dee waxtu woo xam ne da ngay tukki na nga xam ne ñu wàññi julli yi yi matoon ñeent ba mat ñaar kon tisbaar takkusaan daañu bokkaale ci waxtu lu tolloog diir boo mën a jullee ñaari rakka lañu wutee nag mooy lu tolloog foo mën a jullee ñeent rakka wala lu tolloog foo mën a jullee ñaari rakka buñ ne moom lañ bokkaale ci waxtu ana fu ñu ko bokkaale ca la ñu wute am na ñu ne dañ ko bokkaale ci mujjug muxtaarum tisbaar maanaam fa muxtaarum tisbaar yam boo demee ba mu des ñeent ràkka ci bu fekkee tukkiwoo wala mu des ñaari ràkka foofa la tisbaar ak takkusaan bokkaale waxtu boo toppee jooju wax nag soo bàyyee ba tisbaar la des ci muxtaaram doon loo mën a jullee ñeenti ràkk nga dal di gaaw julli takkusaan xam nga takkusaan jotagut boo gaawee julli takkusaan du tee takkusaan ja wér ndax da ngaa fekk waxtu wañ bokk ñoom ñaar nga jullee ko ca bu fekkoon tukki la nga bàyyi ba muxtaarum tisbaar des loo mën a jullee ñaari ràkk nga daal di gaaw julli takkusaan xam nga takkusaan jotagut du tee takkusaan ji wér ndax da ngaa fekk waxtu ñu bokk ñoom ñaar nga jullee ko ca loolu mooy jenn wax ji jenn wax ja dane ci njëlbéenu muxtaarum takkusaan ca lañu bokkaalee lu tolloog foo mën a jullee ñeent ràkk wala lu tolloog loo mën a jullee ñaari ràkka bu dee loolu nag kon soo yeexe woon tisbaar ci sag tey ba muxtaarum tisbaar lépp jeex muxtaarum takkusaan tàmbali nga daal di gaaw julli tisbaar koyit doo am bàkkaar ndax danga yeexe rekk tisbaar ba ci waxtu wa nga xam ne moom la bokk ak takkusaan nga xam ne nam doone waxtu takkusaan noonu la ko doone waxtoo moom it nga julli ko ca nga xam ne kon su fekkee tukkiwoo nga tey ko tisbaar jot nga bàyyee bàyyi ba takkusaan di door a jot nga daal di gaaw julli tisbaar du tax ñu wax ne yaaxe nga tisbaar ba muxtaaram jàll da nga am bàkkaar déedéet doo am déedéet doo am bàkkaar ndax danga fekk waxtu wañ bokk ñoom ñaar nga julli ca tisbaar bu fekkee tukki la itam ngay wàññi julli tisbaar jot nga tey ko yeexee ko yeexee ko ba takkusaan di door a jot nga gaaw julli ko moom tisbaar ñaari rakka ci njëlbeen takkusaan boo toppee jooju wax doo am bàkkaar ndax danga bàyyi ba ci waxtu wañ bokk ñoom ñaar nga gaaw julli ko ca boo bëggee takk li nga weesu ngay wax ne muxtaarum tisbaar mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee bàyyi ko ci digg asamaan te wax nanu la na nga koy xàmmee dana dema dem nag ba lenn lu ne boo nattee ab takk ndeeram mu gudd ne moom loolu la ñuy tuddee alqaamatu al ula foofee muxtaaram yam nag mooy bi takk ndeer tolloog boroom takk ndeer ba wala muxtaarum takkusaan di tàmbalee muxtaarum takkusaan bu la neexee ne mi ngi yem ci buñ demee ba suuf si gel maanaam naaj wi weexatut dafa xaw a xong ndax jant bi dafa jëm ci soo bu la neexee itam ne muxtaarum takkusaan mi ngi yem ci soo demee ba jenn jëmm ju ne boo nattee takk ndeeram mu ñaar ca ko takk ndeer bi ñaar ca jëmm ja loo ci wax rek tegtal la ci jeexuk muxtaarum takkusaan ku ci ne ci ñoom ñaar nag fa muxtaaram yam fa la daroor yoom di tàmbalee ba jant bi so nga bañ a fàtte ne bu ñu nee ñoom ñaar tisbaar takkusaan dañuy bokk ànd ci daroor yi ba jant bi so bu ñu tolloo ci la des ci waxtu ñu mën caa julli genn julli dañ koy moomale takkusaan bàyyi tisbaar minal xoroo bi tàmbale na ci soga magaribun timis fa day yëq na nga xatal waxtoom bi qadri shartin ci kem ab sart aw maxi bi shafaqi wala fàdduk shafaq timis muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu jant bi soyee bu la wóoreen jant bi sono rek amoo ci nattable foofa la muxtaarum timis tàmbalee dañuy wax ni moom nag muxtaaram dafa gàtt am na ñu koy tolloole ci su jant bi soyee boo fi toogee diir boo xam ne laab sol ay yére jublu xibla julli ñett rakk boo fi toogee diir bu toll noonu rek muxtaaram dal nay jeex am ñu ne muxtaaram kay mën nga koo xàmmee ci bu jant bi sooyee daal fa la tàmbalee dana dema dem nag ba li ñuy wax shafaq raaf shafaq mooy xonq-xonq yi nga xam ne mooy des fi jant bi soye woon xonq-xonq yooyu moo tudd shafaq bu demee ba raaf ba gisatoo ko nag foofa la muxtaarum timis yem bu ko defee gee nag moom tàmbalee foofa waxtul xisha waxtu gee minhu tàmbalee na ci fàddu shafaq li sulsin ba ci ab ceer maanaam ceerub guddi xuddima wub jiitaleef na ko fa timis yemoon muy bu xonq-xonq yooyu raafee faragee di tàmbalee dama dem nag ba boo defoon guddi gi ñetti xaaj benn xaaj ba war a jeex bi ñuy guddi gi moo tàmbalee ci fijant bi soye mooy fi nodde timis ba fañ war a nodde salaatu diggante boobu rek la ñu tudde guddi gi saa yu ne boo ko defee ñetti xaaj fu xaaj bu njëkk ba yam rek xamal ne fa la muxtaarum geeyam daroor yoom tàmbalee foofu nag ba fajar fenk moo tax mu ne wa minhu tàmbalee na ci ceer ba daroori yun daroori yu lil fajri ba ci fajar fii ma ci ñoom ñaar kon bi nga waxee timis fa muxtaaram tàmbalee ba fa mu yem ak bi nga waxee gee fa muxtaaram tàmbalee ba fa mu yem jàppal ne ku ci ne fa muxtaaram yem rek la fa dalee ba fajar fenk mi ngi bokk ci daroori yoom xanaa rek nga baamu foofu ne buñ demee ba suñ digganteeg fajar genn julli xaj fa dañ koy moomale gee mi mujj bàyyi timis was subuhu suba min fajrin mi ngi tàmbalee ci fenku fajar ilal isfaari ba ca set ga awit tuloohu wala boog fenku jant ba aaxirul muxtaar yi moo di mujjug muxtaarum suba suba muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu fajar fenkee béréb bi nga xam ne fi la jant bi war a fenkee bu jant bi dee ñëw ak leeram day tàmbalee feeñ foofa leer googu bu feeñee ba tasaaroo ba matale gox bi kon jullik fajar bu jullik suba jot na foofu la moxtaarum suba tàmbalee dana dema dem nag ba bët di bëgg a set ba àgg ci boo gisee nit te muurul kanamam nga xàmmee ko ndegam fekkan na nga xam ko foofee bët di sete ba boo xoolee nit xàmmee kanamam fa la daroor yu suba tàmbalee ba jant bi fenk jooju wax moo gën a siiw ci yoonu Maalik daa am na ñu wax ne suba muxtaar rekk la am waaye amul daroor yi bu dee ci ñoom bu fajar xaree rek fa la muxtaaru suba tàmbalee waaye day wéy ba jant bi fenk benn yoon amul ci ñoom teqale muxtaar ak daroor yi waaye say boo jàpp wax ju njëkk ji sàkkal ko muxtaar sàkkal ko daroor yi booy sikki sàkk nag waxtu sàngam jot naam jotut bul julli na nga bàyyi ba am ca lu la wóor a wóor mbaa boog sa njortu dëgër lool ci ne waxtu julli wa jot na booy sikki sàkk maanaam nattable rekk yem ci julli gi jot naam jotut boo jullee itam julli googu du baax boo julli woon ba sëlmal laaj ko amee montar mu wax la lu la won ne la da ngay julli fekkan na mu jotit julli ga nga julli woon moom du baax ndax ba nga koy julli da nga doon sikki sàkk rek ba xam jot naam jotut iqaaxuhaa ak tàbbalam moom julli ga fil ixtiyaari ci waxtu tànn ga woon mun ak màng la wa fi daroor yi nekk na ci daroor yi wa al adaa joox ga wal ismu ak bakkaar ba gannaaw bi la xamalee nag julli bu ne fa muxtaaram tàmbalee ak fa mu yem ak fa daroor yoom tàmbalee ak fa mu yem soo julliwul ca muxtaar ma te yaa ko tey amoo benn ngànt ba muxtaar ma jeex rek danga gàddu bàkkaar bu rëy rëy boo xasee julli rek ci waxtu yi moo xam ci muxtaar la moo xam ci daroor yi la dañuy wax ne joox nga maanaam julli nga ci waxtu wa soo bàyyee nag ba daroor yu jeex nga door di julli mooy tudd ak fay maanaam fay bor julli moom bu yaari waxtoom yépp jeexee nga door di julli dangaa fay bor waaye julli woo ca waxtu wa boo jullee nag ca daroori yu te nga xam ne ngànta ko waral julli nga ci waxtu wa te doo ca am bakkaar bu fekkee ngànt waralu ko nag julli nga ci waxtu wa waaye da nga gàddu bakkaar bu rëy rëy leen ko waxe léegi mu wax la nag kon ngànt yi mooy illaa li xudurin ndare ngir ngànt mislu xayudin kem mbërëg aw siban wala ak ndaw aw nawmin wala nelaw aw irma wala ak xëm wa xaqlin akum xel dahaba moom dem na nisyaanin akuk fàtte kufrin ak weddi gu cosaanu ca jëmm ja riddatin akuk murtat mooy weddi goo xam ne gannaaw bu mu duggee ci lislaam la laa sukkurin du caageenu màndi ngant yi nga xam ne mooy tax nga sañ a julli ca daroor yu te doo amee bàkkaar moo yii bi ci jëkk mooy jigéen amee woon baax mbaa mu amee traité wasin bañ tolloo ca waxtu muxtaar amatug laab bañ tolloo ca daroor yi nag mu daldi laab daldi julli ca daroor yi kooku dara du ko ca war mel ne ni sax dañ koy bindal tuyaaba yi ku julli woon ca muxtaar ndax moom ñàkkam ñàkk na julli ca muxtaar ma ngànt la lu ko yàlla tegoon mooy ñàkk gaa làpp ba tey koo xam ne ba mu tolloo ca muxtaar ma dafa kàllafee gutoon di gone naka muxtaar ma jeex bañ àgg ci daroor yi mu daldi gis màndarga mu ko won ne ko moom mii kat kàllafe na mu daldi julli ca daroor yi kooku ba tey du ca am bàkkaar kooku sax bu fekkee julli woon na ca muxtaar ma itam mu wër ko ne booba gone la xam ne julli ko luy sopp rek la ci moom su tolloo ca daroor yi gis màndargam kàllafe faaw mu war a baamu julli ga ndax julli gam julli woon ci muxtaar lu ñu soppoon la te julli gi muy julli léegi ci daroor yi farata la waru gar la ba tey ku doon nelaw mbaa mu doon xëm mbaa mu tàggoo woon ak sagoom ni ki doon say li ñuy wax ak ndof dikkaloon ko ca bam tolloo ca muxtaar bañ demee nag ba muxtaar jeex bañ dugg daroor yi bu fekkee daroon nelaw mu yeewu mbaa bu doon xam mu ximmi mbaa bu doon dof mu tane ba ànd ak sagoom yooyu yëpp mu daal julli ca daroor yi du am bàkkaar ndax loolu lépp ngànt la lu ko yàlla teg la kufur ji wax nag muy weddi mooy koo xam ne dafa nekkoon ci kéefar ba muxtaar jeex ba muy tuub nag fekk daroor yi dugg mu daldi julli ca daroor yi kooku ba tey du am bàkkaar koo xam ne itam daa nekkoon ci lislaam gannaaw ba mu wax mbaa mu def lu ko ci génne bañ weesoo muxtaar ma nag ñu waar ko ba mu delsiwaat ca lislaam mu daldi julli ca daroor yi ba tey kooku du am bàkkaar mandi moom dañ koy def yaari wàll mandi goo xam ne moo ko tey naan luy màndal muy mandi gu araam bu ko defee ba daroor yi ñëw mu door a ximmi door a julli du tee mu am bàkkaar bu rëy rëy ci yeexee julli ga mu ànd ak bàkkaaru mandi ga bu dee mandi goo xam nag teyu ko woon dafa naan loo xam ne du sàngara dawul màndal moom mu màndal ko wala muy faju rek naan garab mu màndal ko kooku mook nelaw ak xam ñooyamoo su muxtaar ma jeexee mu door a ximmi julli ca daroor yi du tax mu am bàkkaar wa quddira nattaleef na at tuhru laab ga li xëyril kufri ñeel lu dul weddi ga képp koo xam ne ame woon na ngànt bu ngànt la jeexee dañuy seet la des ci waxtu wa ndax mën na faa laab ba noppi am ci ab ràkk am ndéet su fekkee ne sangu farata moo ko waral dañuy tolloole diir boo xam ne war na faa mën a sangu farata bu fekkee jàpp rek moo ko waral ñu tolloole diir boo xam ne jàpp xaj na fa gannaaw bu ngànt la jeexee bu ñu tolloolee ne mën na fee laab ba noppi am ca julli ga ab ràkka kon julli googa war na ko bu ko defut ba waxtu wa jeexi dutee rek muy bor bum war a fay ba mu des nag weddi yàlla weddi yàlla moom ngànt la woon ñu waxoon ne ku nekkoon ci kéefër ca jamonoy muxtaar ba ca daroor yi mu door a dugg ci lislaam daldi julli du am bàkkaar kooku nag moom lañu dul tolloo leel waxtu mën a laabe képp koo xam ne daal nekkutoon ci lislaam bu tuubee dañu xool rek la des ci waxtu wa ndax mën na caa amub rakkaam ndéet duñ fa tolloole ngir bu mën a jàppe mbaa bu mën a sangoo farata saa yoo xam ne rek la des ci waxtu wa mën nañ ca amub rakka ñu jàpp ne julli googa war na ko ci kaw nit ñi tolloolee laab ga mooy da ngay wax ne jigéen bu gisoon baax wala mu toll ci amee deret wasin bu demoon ba deretam jeex laata jant bi so ñu gis ne suñ digganteeg jant bi sokat mënees na fee laab ba noppi julli fi juróom ràkka dañuy wax ne kon jigéen jooju tisbaar ak takkusaan yaar yépp war na ko ndax mën naa laab ba noppi julil ñeent rakk tisbaar dugalal benn takkusaan balaa jant bee so te julli moom boo ko dugalalee benn rakk ci waxtoom rek joox nga ko mooy julli nga léppam ci waxtoom loolu sax mooy bu fekkee jigéen ji nekkul di tukki bu doon tukki moom su deret ja jeexee ñu gis ne mën naa laab diggante ba jant bi soo mën faa julli ñetti rakk dañuy jàpp ne kon tisbaar war na ko takkusaan war na ko ndax ñetti rakk yi day moomale ñaar ña tisbaar moomale benn ba takkusaan balaa waxtu waa jeex maa balaa jant bee soo te julli moom boo ko dugalee benn rakk day mel ne léppam nga dugal nga xam ne yooyu jamono bu sàgganee ba julli wuttam loola bor lay doon bu gàllu ci aw loosam ba tey bu fekkoon ne jigéen dafa gis baax wala mu am doom di gis deret wala sax muy ku yàlla tegoon ak ndof wala xam ci guddi gi nag muy dema dem ba nga xamee ne digganteem ak fajar bu dee jigéen ji ba mu setee wala bu dee kadafoon mbaa muy xam ba mu ximmee tane ku seet digganteem ak fenku fajar mënees na faa julli ñeenti rakk dañuy jàpp ne kon timis ak gée yaar yépp war na ko ndegam mën naa laa ba noppi julli ñeenti rakk rek timis war na ko gée war na ko ndax dañuy jàppal ñetti rakk yi timis daldi mën a dugalal gée benn ci waxtu wa balaa waxtu waa jeex te julli gu ne moom boo ko dugalalee ab rakka ci waxtoom rek jot nga ko lépp day mel ne dugal nga lépp lépp gannaaw ba ngant la dañee nag moo xam njëkk jant bi sola moo xam njëkk fajar di fenk la bu ñu seetloo genn julli rek xaj fa dañ koy wax ne ko kon genn gu mujj ga rek bu dee tisbaar takkusaan ga mujj muy takkusaan moom rek koy war bu dee timis ak gee ga ca mujj muy gee rek moo koy war ndegam yaar yëpp xaju ca moom ga ca mujj rek moo koy war ga ca des jaanam wàcc na ca bu doon julli suba mi nga xam ne bokkut ak kenn waxtu itam su ngantam loolee dañee moo xam deret ju jeex la wala ak ndof mbaa xamte lu jeex dañuy seet diggante boobu ak jant bi di fenk su fekkee ne mën na fee laab am ca benn rakk rek julli suba ga war na ko bu fekkee ne nag laab am ci ab rakk xaju fa kon julli suba ga wàcc na ko waru ko wa asqata rotal na al mudraka lañu jot xodurun ngànt xasala lool am na loolu takk-takk la daa wax ne bu ñu nee waxtu yi day bu ci ngànt li dañoon julli ga dana ko war xamal ne kon biñ demee ba ci waxtu woowa ngànt la far ko dal kon julli ga wàcc na ko mel ne bu ñu nee jigéen bu gisoon baax wala mu amee tëreti wasin ba mu demee nag ba digganteem ak jant bi bëgg a so mu daldi laab ñu gis ne itam mën na fee sangu julli fi juróomi ràkka nga waxoon ne kon tisbaar war na ko takkusaan war na ko su ko julliwut ba tey muy bor rekk waaye war na ko da ngay dellu wax ne nag su fekkoon ne jigéen tisbaar dafa jot julliwut takkusaan jot julliwut te moom amul benn ngànt ba mu demee nag ba digganteem ak jant di soo ñu mën faa julli juróomi ràkka mu daldi gis deret da ngay daldi wax ne kon tisbaar waru ko takkusaan waru ko su fekkoon ne nag ba mu gis deret ja genn julli moo ca xaj niki boobu mëni su faa julli juróomi ràkka benn mbaa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent lañ bu dee jigéen bu demee ba laab wala bu dee ku dof wala muy xam bu demee ba ximmi na fay tisbaar ndax moom fekk ko woon ci ngànt bu doon ci guddi it amul ngànt waaye taxul mu julli timis taxul mu julli gee mu dema dem nag ba suñ digganteeg fajar di fenk ñu mën faa julli ñeent rakk rek yem ci mu daldi am ngànt nag niki bu dee jigéen mu gis deret wala ku mën doon rek xam wala ndof dal ko dañuy wax ne kon timis ak gee googee dara du ko ci war ndax ba waxtu wa desee loo xam ne ñoom ñaar xaj nañ ci rek la ko ngànt li dikkal kon yaar yépp wàcc na ko su fekkoon ne nag ba ko ngànt lay dikkal benn rakk rek lañ mën a julli suñ digganteeg fenkuk fajar wala ñaar mbaa ñett dañuy moomale loola gee daldi xam ne kon ngànt li mi ngi ko dale ci gee lu yàgg-yàgg nag bu ngànt li jeexee na fay timis moom ndax timis amewu ca ngànt ngànt li ci gee rek la ko dale bu doon julli suba it ba suba jotee moom julliwut ñu dem nag ba suñ digganteeg jant bi fenk ñu mën faa julli benn rakka dong mu daldi gis deret wala ku mën doon ci góor ak jigéen xam dikkal ko wala ak ndof dikkal ko julli suba ga wàcc na ko ndax daa gisee ngànt la ci waxtu woo xam ne bu ca ngàntam dañoon julli ga war ko kon nag kon nag kon nag bu ko ca ngànt li dikkalee da koy daal di wàcc muy takk-takk bu yaatoo yaatu mën nga koo jàppe noonu laa naw mun du caa génnu nelaw aw nisiyaanun wala fàtte aw in xafala wala ndeem sàggan na dafa am na xeeti ngànt yoo xam ne moom bu ngànt la dañee